salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax aha waaw loolu kon taw fii ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi gin donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla sëñ Fall bil xayri wal mafaazi alhamdulillah central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje dine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo. salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar alaahi bi kawni abda rabbi xadimahu hajibun bihi li jaada moonin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqi عليه سلام من له أبت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقاد li baaqin maa durra alladi hada qadar salaatu alladi anumu abdan lobi ala man bi li xaada sawan bila kadar fasaatu xayri lxalqi abdat qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar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 salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar